daa bëgg a daa bëgg bëgg photo yi daa bëgg daa bëgg bëgg photo yi daa bëgg a daa bëgg a bokk